cant yi jiitu woon cantuk tey gii di sàkku itam ci loolu ngeen ñaanal ko ci barkeb sëñ Touba cant yooyu wéy di sax lu yàgg ba sax lu kawe njort ndax barab bii nga xam ne fi lañ nekk tey di fa sant sëriñ bi ndax lii sant sëñ Touba la kero bi nga xamee ne yàlla dogal na ñu ñëw fii di ko sàkku si yàlla baaxe woon nañu àndoon nañ ca biñ ñëwee itam la nu waxoon ba tey fàttewuñu ci dara ndax keroog biñ ñëwee noon bi ñuy ñëw xamuñu woon lu nu tax a jóg sëñ bi moon woowoon rek ne daa bëgg danoo soxla nu ànd ak moom bi ñëwee ba fii nga wàcc ne ne ko jox naa la fii lu mat ñeent fukki mètre yu kaare addi yi sëñ Modou Mamoun waxtu woo ko defaree rek ñu dolli la ci addi soxna may yàlla dogal man mi itam sunu borom baaxee ma mooy mu geesu ma ne ma kon barab baa ngi noonu ñu nekkee ci di nab nabi ba lii fekk nu ca nga am bis boo xam ne ne danga nga koo bëggee ñëw seet si mu ne kon ndegam fii nag fi nga ko joxoon te amul mu am pas-pasu liggéeyal fi sëriñ Tubaa nañ ñëw fii defe fi ngan gi nga def ko fi nag ay yoon ba tey jii nga dellu si ànd ak bokk yu baax yi nga xam ne waxtu wu ne dañ ciy gis ak ko loolu nag tax xolam sedd lool mu yëkkati ay kàddu yu cant nag jëmee ko ci yow ak njaboot gi nga àndal yëpp cant googu itam nag mi ngi koy ànd ak mbooleem njabootug seexam di Moustapha ak yëpp ndax moom nun bokki taalib yi nga xam ne noo ànd ak moom mii daa doon sun feex ci nun bis bu nu gisee sëriñ bii di wax ci moom mën na noo bañ a yëkkatiwaat kàddu du jëme ci kenn koo xam ne daa bokk ci leer si di ndax moom bi toogee fi barab toogal na fa ñoom ñëpp ñoom ñëpp itam nekk moom mii nga fa nekkal waaye mi ngi jël cant googu boole ko njabootu Cheikh gépp di leen ko sant seen jataay bii ndax moom day nee na jàpp gi ngeen ko jàpp xam na ko bu wér waaye fa ko Cheikh Amdi féete rek ngeen ko féete ci ak bokk fa ko soxna moominatu eh, féete ngeen ko féete ci ak bokk waaye nag da ngeen koo jàpp nag jàppuk nawle goo xam ne yëg na ko bu baax te xam na ko bu baax ba tax na mu ngi yëkkati kàddu cant jëme ko ci yow ak sëriñ abi bu mii nga xam ne moom nga àndal tey ci jataay bi mu dik dolli ko ci ci jataay bi di ñaan nag ci barkeb sëñ Tuubaa yal na yàgg xolam sedd na sedd sedd goo xam ne mënut a yëkkati kàddoom di tudd ni sedd lépp waaye nag bu ci junjee ak ak ak sedd jëme ko ci yéen fa mu bëgg mu àgg fa ci ak ak ak yegg dangeen ngeen ko fa yeggaleel xolom sedd na bu baax am xelam it dal na ndax nit bu nekkee ci aw yoon di ca dox léeg-léeg kilifaam fekk ko fa ne ko waaw góor xelam dana dal ci ne fa muy dox fala bi xolom seddee ba noppi am xelam daa dal mi ngi ñaan nag ci lim am ci sëñ tubaa di leen ci ñaanal di ñaan itam ngeen ñaanal ko ci li ngeen am ci sëñ tubaa muy benn am am bi ndax menn mband bu ko ay nit bokkee ku am sa pot bu la neexee tànk boo tànkee nag la ngay tànk ku la neex may ko ca kon mi ngi leen di ñaanal ci li mu am ci sëñ Tuubaa sunu borom yëg dëgëral seenu taxawaay te yàggal ko di leen ñaan nag ngeen ñaan ko li ngeen am ci sëñ sunu boromam dëgëral ab taxawaayam te yàggal ko li nga xam ne moom kuy dox ku ne ci àdduna am nga ko muy yéene nit ku ne saa su xëyee dana am lu mu yéene ci xolam bëgg faa àgg lu ak yàgg-yàggit am na lu mu yéene nee na yéene yooyu noo ngi ñaan ngeen ñaanal ko sunu borom yeggaleel ko ko ci ni mu ko bëgg ci sago mi ngi leen di ñaanal loolu yéen itam. gannaaw loolu itam nun taalib yi nga xam ne nooy dong yi ànd ak moom nu it sañ na noo jottali sunu cant bu buñ leen santee ba noppi ndax nun ka sëriñ bii képp koo xam ne yëkkatiku nga ngir moom boo ko yëgee ak boo ko yëgut boo nu xamee ak boo nu xamul sunu xol sedd na ci yow ba noppi. pun la seen itam sunum xel day dal ci yow sunum xol day sedd ci yow ndax moom mii lan am. muy sunu lépp nu def ko muy sunu lépp ndax bi nga xamee yàlla dogal na mu toog toogaayub Cheikh Amdi Moustapha bii ba tey mboolem noon lii dal murit yëpp daloon nanu kero bi sunu sëriñ fatoo kenn ku ne defoon nga ne foo jëm ngay wax way fu ma jëm waaye bi mu toogee tuuti li baaxoo am ci yoonu sëñ Tuubaa wi am na ci muy kenn ku ne bu fekkoon ne fàttes dagan na danga naan fàtte nga loola lu njëkk la ndax li mujj li kon noo ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa yal na yàlla gën a dëgëral ab taxawaay itam gën koo yàggal itam di sàkku it ngeen ñaanal ko ci loolu ñu yëkkati suñu kàddu tam di ko sant bu baax di ko booleeg noonu yi mu ko jiitale muy njabootu seexam di Moustapha gépp kenn ci ñoom ku ne sagal nanu nun nun de bu dee des nun ci ñun la des waaye nun nun ñii de sunu sëriñ si sagal nanu jiitee ko ci nag moom mii fun taxaw fu ne rusunu faa wax kuy sunu kilifa ci yoon wi nu ko faa wane rusunoo ànd ak moom rusunoo taw fen di fa rusa wax ne diwooy sunu sunu sunu sunu sunu sang muy sëñ Cheikh du mii loolu nun taali bi yëpp noo ngi ciy maase ci sama kaddu di leen ko seereel ndax bis la boo bis boo xamee ne yàlla dogal na du yomb léeg-léeg bu amee la nga bëgg a wax da nga ko cee wax mm-hmm. ñu ngi leen di seere sunu cant jëme ci moom di leen seere itam sunu yaakaar jëme ci moom te ya te ñaan nag yaakaar jooju yàlla dëggal ko ndax nun bokk nañ ci ñi nga xam ne buñ sañoon sax duñ yëkkati suñu kàddu jëme ci moom ngir bëgg dara bañ koo fil bëgg nañ suñu borom taxawal ko te dëgëral ko te yeggale yéenam tan ànd kook moom itam ngeen ñaanal ndax ab sëriñ ay taalibe am nañ ci moom solo kon nag noo ngi ñaan yàlla ngeen ñaanal nu sunu borom defaralal nu sunu taalibe te tegal nu ko ci loxol sëñ tubaa bu ko defee lin yéenee lëggéeyal sëñ tubaa nu ànd ko ak moom kenn ku ne ci nun taalibe yi am na yéene jum ëmb ci xolam bëgg koo ànd ak sëriñ bii nu bëgg ngeen ñaanal nu yéene yooyu yi sunu borom dimbale nu ban yeggale ko nin ko bëgg yeggalee ci barkeb sëriñ bi fasunoo yéenee doon doon lenn nag lu taalibe sëriñ bi cant yooyu itam ñi ngi koy yaatal ci mboolem murid yëpp ndax yéen ñaar ñi yàlla daf leen daf leen defal tawfeex ci yoon wi yoo xam ne yàlla ngeen ci am dam ndax euh, sëriñ Amsatu mii nga xam ne daayiratu bi ñu wax Xudaamul Xadim moo ko jiite di daayira boo xam ne nii lépp luy taq-taq bu bokkut ci yoon wi moom mii moo ko war a setal loolu tawfeex la ndax yoon wi yàgg na loolu yàgg na fee am waaye nu tudd ab daayira tudde ko loolu diw jiite ko loolu ba mu amee yàggul moom mii di euh, sëriñ Habibou tuubaa ca kanam ñëpp xam nañ ne léegi àgg na fépp murit boo gis itam xolam a ngi ci Touba ca kanam tuubaa ca kanam itam yàgg na fi ndax xalaa kulli xaalin yëfi sëñ bi kanam rek lay jëm yàgg nañ ko jëme kanam itam waaye wut nag ab ak ak kuréel mu di boo xam ne daa tudd Touba ca kanam kenn jiite ko loolu moom yàggul ci moom mii la ko suñu borom jaarale kon yaari mbir yooyu nga xam ne lenn lu ne taw feex la joo xam ne ci sëñ bi la bokk muy lu sëñ bi ñaanoon te yegg seegun ca woon muy dem ba adduna andi ngeen mu yegg si kenn ku ne ñu teg ci dara ci sa loxo yàlla na ngeen ci am ndam yàlla na ngeen ci am ngërëmul sëñ Tuubaa te ñu ànd ko ak yéen lii sëñ Cheikh du bëgg a wax jëme ko ci yéen xëy na lépp mënuma koo wax ndax man mi ñu koy sotti ci man xajul ci man li ma yéen itam mënumaa génne lépp waaye noo ngi sant tey gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa